Muhammed ve Sünnet Efendimiz'e kadar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 danañ la mën a tàbbal ci group bi incha allahu waaye nag dana am sarta yoo xam ne tëral nañ ko lu tee ci biir group ba incha loolu yëpp képp ku jokkoog ñu rek dana gën a leer bu neexee suñu borom subhaanahu wa taala yëqoodu dana womatal allahu yàlla alkarimu moom muy aji tedd lii jëmee ci man sira mbóot moo xam ne yatarudu dana dàkku iblisa iblis wa yak fii ta dana ma fegal sara lépp luy xay sunu borom mi nga xam ne moo di allahu di aji tedd nee daf may jox mbóot moo xamee ne mbóot moomee mooy tax iblis dootuma jege mukk waxtu wu ne day daw rek di ma sëri waaye lépp luy lu bon lu yées luy xay rek mbóot moomee yàlla xamal ma ko jox ma ko muy siru boobee moo tax iblis waxtu wu ne day daw di ma sëri ak mboolem aw xayam moo tax ma ne yuqulu dana womat lii jëmee ci man allahu yàlla alkarimu moomu di aji tedd sira mbot moo xam ne yatrudu dana dakku iblisa iblis wa yak fii ta dana ma fegal sara aw xay nafa dàq na allati yàlla mi nga xamee ne ramma yiwénal na umóor samay mbir jaxraa ci lu feeñ tawajjuhat duri la muy dàq mooy jublug lor yi ilay di jëm ci man adaxraa diirug jamono nee na sun borom mi nga xam ne moo defee sama mbir yépp ci saxir nee na mboolem lor yoo xam ne dañ maa dëj ma loon di ma jublu yàlla moo leen dàq ba diirug jamono man kenn mënatut maa lor te benn lor dutu ñëw ci man. yàlla dogal na ne man dëxara la wax diirug jamono rek man kenn mëntu jël ay lor di ma lor ndax sunu borom defal na sama saaxir ba noppi dàqal ma mboolem lor yi ma dëj ma loon yépp ba duñ ma jublu ci gépp jamono. ataaniya jox na ma allahu yàlla nawaalan ay may yoo xamee ne sarra dana kontaan loo dana bég loo xayral wara ngën ci mindeef waaye yuti bu dana teela lii ma almamara samak jaarwaay nee na sun borom mii di allahu may na ma ay may yoo xamee ne waxtu wu ne yonent bi wasallam mi nga xam mooy ki ngën ci mbindeef yëpp da ciy kontaan di ci bég te may yooyee fu ma moso jaar rek noonu yi doon ma fa fitnaal di ma fa teg ay nattu yëpp may bu ma xalaatee may rek fàtte coono yi loolu mooy youtube lil mamara nga xam ne sëriñ bi pay ki ko yàlla pay dafa neex ngeen ci mindeef mu neex ko ba pay googee moom sëriñ bi bu ko xalaatee rek fàtte na coono yi nga xam ne doon nañ ko ko teg ci barab yam jaaroon lu mel ni Ndakaaru lu mel ni Konakiri Karambasa Limbarwali ba ci Galwa ba ci ba foofu yëpp coono yi ñu ko fi teg bu xalaatee mayu ko boromam defal rek fàtte na coono yooyu askuruhu danaa ko sant ba bi maa yeddu mu ànd koog dana tappe dana tappe mooy dana boole a dëxraa diirug jamono li xóori xii ñixel jigéeni xóorul ay ni wal walxatu mbind mii may bind sara mujj na maxraa doon seenug cam nee na bind mii may bind yàlla da ko boole ci jigéeni xóorul ay ni ya nga xam ne mbind mi léegi mu mujj doon seeni can nga xam ne kon ku bëgg can jigéenu xóorul ay ni mooy nay faral jàng xasida bokk na ci ñi ëpp jigéen ñi wóorul ay nii ak kër yi gën a kawe ci aljana gën neex mooy jànkatu xasida yi loolu sëñ bi wax na ko ci bar yu bari kon yàlla maa ngi koy sant ba faw cant goo xamee ne dana tàppi diiru jamono ci jigéenu xóorul ay neem ya ndax yàlla da ko jox seeni seeni can ya moo tax waxtu wu ne da koy sant yàlla ci jox gi ko ko jox te mbindam mi muy xasaa itam yi képp ku koy jàng na nga xam ne am nga canu xóorul ay ya loo xam ne dana fa wax sa njot moo tax ne askur dana ko sant cant ba faw bi maa yeddu mu loo xamee ne dana ko tappi mooy dana ko boole addaxaraa diirug jamono li xóor yi ca jigéenu xóorul ay niyam ya walxatu ta mbind ma sax saara mujj na maxraa di can nga xam ne kon bindam sëriñ bi léegi mooy canu jigéenul ay xóorul ku ca bëgg fok ngay jàng xasiide yi moo ci gën a gaaw muhammadun muhammad san sax dàq na ani musarima adura lépp luy lor sala yàlla julli alayhi ci moom muhammad moomee man yàlla mi nga xamee ne yuquuru dana womat alxura càng su baax si jëmee leen fa moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp luy lor moo dox sama digganteeg moom mooy sama pakk lépp luy lor yonent bi moo koy aaye moo koy tere ba du ma jublu yonent boobu nga xam ne nag lépp luy lor moo dox sama digganteeg moom ba dara mënuma lor yàlla na yàlla julli ci moom yàlla mi nga xam ne mboolem sang su baax si mu yonent yi ak nit ñu baax ñëpp moo leen di xëcc di leen jëmee ci boppam man yoqoodul qura alqura mooy sang su baax si ñëpp suñu borom moo leen womat di jëmee ci ñoom di jëmee ci boppam nafa dàq na tawajuhal asa jublug lori lii ci man sirra dégg nga ci lu nëbbu rabbi son borom mooy ki ko def wa jaxran ak ci lu feeñ lil la si ñeel waa ja nga xamee ne maa bara déet muy set mukk nee na sun borom subhaanahu wa taala ak ci lu feeñ yëpp waa ji nga xam ne du set mukk ba pincam yàlla heure bu ne day gën di tëq nee na lor yam jëloon jëmale ko ci sama kaw sun borom musal na ma ci fekkal ma ko ci saahir ak ci baatin nafa dàq na tawajuhal asa jublug lor yi lii ci man rabbi sama borom sira moo xam lor yu nëbb yi wa jaxran wala yu fiiñ yi lii la si ñeel waa ji nga xam ne ne maa bara a diin muy set mukk waaw du seet mukk maa ma bara a maanaam waa ji nga xam ne du seet mukk heure bu ne ci ak rambaaje ak tuumaal rek lay def la may def nee na lor yam jëloon yëpp di ko jëmale ci man suñu borom musal na ma ci seetal ma ci ba ma set wicc wut di sama cofeel li rabbi ñeel na sama borom alasi moom mi nga xamee ne xat ajara dawalal na lii ñeel ma xesmatan ak kaaraange kamaa kafaa nii ni ki noonu la ma fegalee al majra muy dawwaay ba bu ne al majra lu mel ni sufunu muy tariqatul baxriyatu moo yoon wi nga xam ne moo yoonu géej gi loolu la ci jublu mu ne sama cofeelu xol yàlla rek laa ko jox ndax ba ma nekkee ca géej ga nekk ca gaal ya de moo ma fa defal barabu kaaraange maanaam daal moo ma musal ca géej ga noon ya ma doon pexeel yépp moo ma musal ca biir gal ga moo tax mu ni sama cofeel moom rek laa koy jox ndax moo ma dawalal ak kaaraange ma am ko ba ma nekkee ca biir géej ga nekk ci biir géej ga ci biir yoonu géej ga mu fegal ma mboolem duusu ndox yeg noon ya ma ko siquloon moo tax ma ne wudi sama cofeelu xol li rabbi ñen na sama borom allasi moom mi nga xamee ne xat dawalal na lii jëmee ci man xes matan ak kaaraange kamaa kafaa nii niki noonu la ma fegalee almajra dawaay ba mooy yoonu gi ba fa nekkee suñu borom fegal na ma mboolem tiis yeeg nattu yeeg musiba yi ma doon teg yëpp suñu borom musal na ma ca. aska salaama yi gën kaa sell julli ak sëlmal. allasi ka nga xamee ne xaada womat na lii jëmee ci man albira ak mbaax. dégg nga ala man yàlla na ko dolli sottu ci kaw yonent bi nga xamee ne. yuquuru dana womata lii jëmee ci man bira ay tiranga nee na gën ka sell julli ak sëlmal yàlla mi nga xam ne waxtu wu ne daf may womatal ak mbaax may gën di tegee ko ci yoonu siraatal mustaqim nee na ak julleem yàlla na ko sott ci kaw yonent bi nga xam ne waxtu wu ne daf may womatal ay tiranga bira bu bu mujj bi mooy tiranga lay tekk mooy loo xam ne yonent bi salaa sa waxtu da koy baaxee di ko jox di ko taral bira bu njëkk bi nag moo di ak mbaax ndax loola séq ak boromam fexe ba jub mu ngi noonu kon xasida googu nga xam ne moo tudd wa basiri la siina amano foofu la yem mu wax ne nag allahuma yow sunu borom maa ngi lay ñaan bi xaqi wàcci laay ci xaqi sa jëmm ji taala je aji kawe alkarim je aji tedd salli yàlla nga sax dàkk julli wa salim te sëlmal wa barik te dollik barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turo mooy muhammad wa ali ak ñoñña wa sax bi ak saxaabaam yépp kama ah lakkata kom ni ki nga xamee noonu nga ma xalagalee xoon man xalaw nii ñi ma bañoon ñëpp dina naasi ci nit wa sarafta yàlla na nga wëlbati a sayaatina sayaatina nit ñi ak jinne yëpp wa man waalahum ak ñi nga xam ne dañu dañu méngoog ñoom mina naasi ci xeeti nit ñi abadan faw nang leen walbati ila xayri ñi jëm ci ku man ab yàlla na nga may lii ñeel ma an la an altafita ma bañ a gestu ilayhim jëm ci ñoom wa an la yaltafitoo ñoom it ñi bañ a gestu ilay jëm ci man abadan faw amin yàlla nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla muy borom mi def kon xasid yëpp xasid ak la mu ne sunu borom maa ngi lay ñaan di ko dagaanee ci sa xaq jëmm ju tedd ji sa jëmm ju màgg ji ci laa koy dagaanee sa jëmm ji xam ne ju tedd la. yàlla na nga julli ak sëlmal te dolli barke ci kaw yonent bi nga xam ne mooy sunu sang di sunu kilifa turo mooy Muhammad yàlla na nga julli ci waa këram ak saabaam ya. comme ni nga xamee ne ñi ma bañoon ci nit ñi noonu nga leen alagee yàlla na nga jullee noonu ci yonent bi ak waa këram ak saabaam ya. maa ngi lay ñaan yàlla na nga wëlbati mboolem xeeti sayaatiin yi ak ñi nga xam ne mooy njabootu sayaatiin yi ñi leen di jàppale ñi di dimbale ña méngoog ñoom ci xeeti nit ñi ñëpp nag leen wëlbati ak sayaati ne nit ñi jinne yëpp ak ñi méngoog ñëpp nag leen wëlbati yi faw ñu jëm ci ku dul man maa ngi lay ñaan nga may ma nag ma bañ a gestu jëm ci ñoom muy sayaati ne nit ñooñu ak jinne yi waaye ñi bañ a gestu ñëw ci man dégg nga kon loolu mooy loo xam ne ak mandu lay doon nga xam ne sëriñ bi du du gestooti jëm ci ñoom ñoom it duñ gestu jëm ci sëriñ bi ndax yàlla musal na ko ci ñoom faw mu ne ko nag yàlla ma nangul ñaan yow yàlla mi nga xam ne yaay borom da koo tënkee baatab laa rayba fiihi min rabbil aalamiin gu yàlla di wax ci alquran ne alquran jiikat amul lu ci sikk ndax su fekkoon ne am na sikk konoon dañoo xam ne bayekoot ci yàlla waaye lu tax amul sikk dañoo xam ne kon ci yàlla la bayekoo ok yàlla nee ne walaw kaana min indi xayrillaahi konoon la wajadoo fiihi ixtilaafan kasiiran su bayekoo ci keneen ku bokk rek yàlla konoon ñu fekk ci wuute yu bari waaye amul benn wuute niñ ko waxee rek noonu la dégg nga waxi baram xam-xam lu ñuy wér wér ñu ngi koy critiquer waaye waxi suñu borom moom kenn du ko critiquer mu ngi noonu ba ci xadis yi sax ñu ngi koy critiquer waaye waxi yàlla kenn du ko critiquer mu ne bismillahi sos nama sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñëpp ci àdduna arrahiimi tey aj yërëm koo soob ci àlaxira laa ray ba amul benn sikk fii di ci nekk moom alquran mi rabbil alamin mu tukkee ko ci yàlla mi borom bi defi alquran nga toog ba yàgg di sikk naan waaw kan moo ko kan la kooku kenn du ko sikk ñëpp xam ne ne ci yàlla bay ko coow laa rayba fi hudan lil muttaqina njub la ñeer weergal yàlla mu ne maa ngi tàmbale ci tur borom yàlla muy xéewlaa kon ñëpp ci na tey ajiram ku soob ci alaxira alquran jii de amul loo xam ne dañ naan la ñiy laajte ci kii la beekoo la nangam lépp kaaf bi yëpp ci yàlla rek la beekoo loolu gi mu jël lam gu gi ne lii qaada saxru sil jamaali naafixe al akramil muxni sakoori raafixe ijaabatan tajuudu bil manaafixe min al ilahi wa rasuli safixe mu ne qaada woo mat na lii jëme ci man saxru sil jama weeru borom taar bi an naafixe kadi aji jëriñe al akrami tedd al muxni kay aji doylu loo ku ko neex fa moom assakuuri kadik santaakoon arrafixe ku di aji yëkkati ku tey aji yëkkati ku ko neex wom matal na ma weeram wi ci jëmmi boppam ijaabatan ak nanguk ñaan goo xamee ne te juudu nanguk ñaan googe dana ma tabe bil manaafixe xeeti njëriñ yëpp minal ilahi mu tukkee ko ci yàlla wa rasuli ak yonentom ba asaafixe yonente ba di aji ramu ji wommatal na ma weeru borom taar bi borom taar bi mooy yàlla weeram ban mooy weeru yàlla yàlla moom moo moom weer yëpp xalaakul yàlla waaye nag buñ ne weeru yàlla dëgg-dëgg tigi mooy weeru rajab mooy weeru rajab mooy weeru sun borom weeru sax ban di weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne weer woowu nag weeru borom taar bi borom taar bi mooy yàlla yàlla mooy naafixa mooy ki jëriñe ku am njëriñ moo la jëriñ yàlla mooy akram yi amul ku muy teddanteeg dégg nga mooy ki gën a tedd ñëpp moom teddante wut ak kenn yàlla mooy muux nii mooy xool jàmm bu ko neex doyluloo ko ca moom mu am lu ko doy sëkk ba du soxlaal kenn yàlla mooy sëkkoor moom dañu mukk di santaakoon bokk na ci turam ya yàlla moom mooy arafian mooy ku yëkkatiku ba tiim ñëpp te dara mën koo fiitee féetee kaw te ku yëkkatiku itam moo la yëkkati nee na nag weeru yàlla muy borom taar bi yàlla muy aji jëriñe ji yàlla mi nga xam ne mooy aji tedd ji mooy aji doyloo ku ko neex moom mooy santaakoon bi mooy aji yëkkatiku ji nee na weeram wi ci boppam moo may womatal ak nangu ijaaba mooy nangu ñaan nee na nangu ñaan googu nag mboolem xeeti njëriñ yëpp ba ma ko weeru suñu borom wi wommatale ci la ma xeeti njëriñ yëpp gane si maanaam ci la ma dikkal te lépp nag ma nga bay ko ci yàlla xeeti njëriñ yooyu ak yónent bi nga xam ne mooy aji ràmm ji lépp ci yàlla bay ko ñëw ci man ci biit weeru yàlla wi waaye lépp ci yónent bi la bay ko ñëw ci man ci biit weeru yàlla wi kon lii xaada saxrusul jamaali naafi al akramil muxni sakur raafi ijaabatan tajuudu bil manaafi min al ilaahi wa rasuli saafi mu ne radiitu gërëm loo naa xan rabbil waraa wëlis borom bindee fi al mu daafin kay aji joñ ji dégg nga wajaade te tabe na lii ñeel ma bi mux jilil madaafin lu gàccal ay joñuwaay ay kënu nee ne gërëm naa sun borom mi borom bindee fi ndax mboolem lu may ragal moo ma koy joñal mooy aji joñ ji mooy ki ma koy joñal ndax dama bàyyi soo mbir lépp yàlla wëkkiilu ci moom lépp luñ may teg ci xeetu lor dama koy bàyyi ak yàlla donte maa ngi yëg métti wi sax damay dellu ci yàlla loolu mooy sabrul mu taw ci leen mooy ñu koy wëkkeelu ci yàlla. loolu mooy li gën a kawe mu ne gërëm naa sama borom mi borom bi ne fii moom muy aji fekk ji nga xam ne ku ko bàyyee sa bopp mu di la fegal ab julit yàlla dana inna laaha yudaafi an allazina amanu yàlla dana difaandaral ñi gëm yàlla ndax inna laa laa yuhibbu kulla qawaanin kafuur yàlla ne ne ñi nga xam ne waraakoo lañ di weddaakoon man yàlla du leen du ma leen difaandar mukk kon ab julit bu amee pas-pas bàyyi léppam boromam yàlla sàmmal ko léppam téyel ko léppam sëñ Tuubaa nee na yàlla may na ma loo xam ne nag gàccal na may téye ay kënu lu mel ni fet lu mel ni ay jaasit lu mel ni ay fetal lépp loo xam ne man nga cee raye sa noon yàlla may na ma lu gàccal loolu man soxlawuma kon loolu wa jaadali bi mox jilil madafi yaskuruhu dana ko sant kulli sama lépp bi sirin ci mboot moo xam ne naasee aji simmi la aji nocc la lii jox ma maa asaa ci lépp lu may bëgg fatlan ci ngëneel bilaa munaasin ci lu genn aji xëccoonteeg nee na sunu borom sama lépp da koy sant waaye maa ngi koy sant ci mboot moo xamee ne ci mbóot moomee ci lay nocc lépp lu may bëgg ci ngëneelam rek jox ma ko maanaam mboot moo xam ne moom sëriñ bi lépp luy bëgg ci ngëneelu sunu borom lu ko ca neex rek ci mboot moomee ci la koy noccee mu ñëw ci moom. te nee na nag buy nocc mboot ma muy bàyyi ko ci sunu borom muy ñëw ci moom sëriñ bi amut kum cee xëccoonteeg du kenn kum ci xëccandoo du benn noon kon loolu day wan ne bàyyi na lépp boromam lu mu soxla ci yàlla rek day ñëw ca sansa moo tax ma yeskuroo dana ko sant ku li sama lépp bi sirin mbóot moo xamee naasien aji nocci na aji simila la aji nocci la lii jëmee ci man ma asa lépp lu may bëgg fatlan ci ngëneel di laa mu naasien ci lool genn aji xëccoonteeg kon sëriñ bi lu muy bëgg rek du ci xëccoonteeg kenn defe naa ne kenn ku nekk ci ñun am na ñu bari ñoo xam ne buñ bëggee dara bala ci jot danañ ci xëccoo coow lu coow lu ne ko ci dégg dégg nga te jënte ko someek nangam ak lune ne gis nga boo demoon ci kos yi tey prison yi ñu ci bëri la leen fa yóbbu xëccoo nangam rek xëccoo nangam rek moo leen fa yóbbu kon yaskuruhu kulli bi sirrin naasiha lima asa fatlan bila munasa baqaau desal na fi kulliye samak lépp mahal bada ihe ànd koog yu yéeme mallaka nii moom loo na ma la nga xamee ne kaana nekkoon na kal wadda ni ki ndénkaan la nee na suñu borom daf fi bàyyi sama lépp ma di fi des ànd defal ma lu yéeme albada in e mooy xam ne yàlla da koo fental mu doon lu yéeme ba noppi nag mu jox ko ko moom loo ko ko dégg nga mu jox ko ko moom loo ko ko nee na yàlla daal bàyyi na fi sama jëmm lépp lu bokk ci man rek dama fi sax ci kaw suuf <laughs> feeg daal feeg daal yéen a ngi dégg daal ne baatab laa ilaha illallah mi ngi jóg rek da ngeen digg mbiram Ahmadu Ahmadu moom du fay mukk kon yàlla dana dana desal sama lépp di ma fi bàyyi waaye ànd yu yéeme la may defal dégg nga di ko moom loo ci waxtu ne ak li nga xamee ne dinkaan la ci boppam nga xam ne dafa nekkoon doon ci man ak ndénkaan yàlla daf ma ko fi bàyyil di ma ko desalal ci waxtu ne moom la ñuy wax jamxu wadiha moom la ñuy wax jamxu wadiha Euh, moo tax bu ñu ne mooy maa udia min say in li sa mooy lu ñu la dénk ngir nga sàmm ko dégg nga masala ñu ne saabun wadixoon mooy haadi un saakinun soo liinin wa daatin yabdoo kala amalil wadixe fataatu wadia mooy loo xam ne daal dénk nañ la ko loolu la ñuy wax wadai masalan buñ taraka hen doxoo wadiatan amaana mooy wóolu giñ la wóolu ba dénk la dara ne ah yow kon maa ngi dem barab sangam waaye maa ngi fi bàyyi nangam nga xoolaalal ma ko kon amaana giñ am ci yow moo tax ñu dénk la ko. lu mel ñu ne wa daa'ihum masri masrifiyatu wa wasaa'iqin fil masrifi li yuhtafasa bihi samanan mooy loo xam ne jox nañ la xëy na mu doon ay takkaay wala mu doon lu mën a doon rek amaana giñ am ci yow moo tax ñu dénk ko. bu ñu ne saqata saqatatil wadaa'ihum mooy al amtaaru muy ndénkaan yi kat root na mooy taw yi xam nga. taw bul defe ne yàlla dafa am ñu ngi ko dénk taw lu mel ni mikaayila lu mel ni niir yi maam nekku nekku ne day jékki-jékki rek taw déedéet day rotal liñ ko dénk ok da luñ ko dénk la moo tax ñuy wax saqatatil wadda imul am taaru mooy taw yi kat asamaan si kat wàcce na liñ ko dénk mooy taw bi dañ ko ko dénk comme niñ la dénkee alal jiñ la jox kii ñi dénkul kii ñi dénkul moo tax kon sëriñ bi ne baqaaw dana desal moom yàlla kulliye sama lépp maxal ba daa ànd koog yu yéeme mallaka nii moom loo na ma ko mooy xool na lu yéeme loo xam ne luñ fent la rek mu moom loo ma ko dégg nga maa la nga xamee na kaana nekkoon na kal waa daa niki ndénkaan li nga xamee ne ndénkaan la woon lépp suñu borom da koo daf ma ko moom loo <laughs> waaw lépp loo xam ne suñu borom dénk da koo dénk ay jaamam rek man Serigne Touba suñu borom daf ma ko moom loo kon loolu wax ju kawe kawe la moo tax mu ne baqaa ut desal na kulee sama lépp maal ba daa ànd ko yu yéeme yoo xamee ne mallaka nii moomu moom loo maakaana la nekkoon kalwa daan yi ni ki dénkaan lépp lu nekkoon mel ni ak dénkaan suñu borom moom loo na ma ko gannaaw ba mu fi bàyyi ma di sax ba fa ànd ko defal mu yéeme dafa maa moom la li xam ne lépp loo xam ne xeeti dénkaan loon rek mu joxoon ma ko yàlla dénkoon ko ñu baax ni lépp suñu borom daf ma ko moom loo ci saayir ak ci baatin kon sëñ Tuubaa muy borom mbir yi fajja ani bett na ma minal min sil baraya mu tukkee ko ci yàlla muy borom bindee fi alqaamihe kadi aji bettee na ma maa loo xamee lam asal du dañ mukk fii nay lii nekk ci biit may yooyu bi di aji di aji xemem maanaam suñu borom mii borom bindee fi te not lépp te not mbindeefam yi moo ma bettee ay may yoo xamee ne dégg nga dañu moon mukk di ko wut di ko bëgg yàlla bettee ma ko nga xam ne dama koo bëggoon yàlla ci jëmi boppam kol ci mbaxam bettee ma ko léeg-léeg ñaareel doomu bëgg dara rek te yaakaar maanaam amut ci woon yëqiin waaye bëgg gi ko bëgg rek suñu borom bette ko ko buñ ne taameo mooy jamxo atma mooy ko xam ne xarisun jasoon ku fëqale ma bëgg dara lu mel ne buñ ne taameo fii xusuli ala mali xayri xarisun mooy koo xam ne daal bëgg na dara waaye xemem na ko lool gis na alal ji xemem ko bëgg ko lool loolu la ñuy wax taameo mu ne kon yàlla muy aji not mbindeef yi te doon seen borom moo ma bette loo xam ne du dañ mukk ci biit may yooyee di aji di aji xemam faja ani bettee na ma min sil baraya mu tukkee ci yàlla muy borom mbindeef yi alxaamexe kadi aji not lépp lum sàkk bettee na ma maa loo xam ne lam asal du dañ mukk fii nay lii ci biit mayam yooyee di di aji xemam dégg nga xam ne yàlla daal la ma doon yaakaar ci biit mayam yooyee di ko xemam waxtu ne bette na ma loo du dañ mukk te ci biir mayam yooyu la bay ko nga xam ne dama ko doon xemam di ko yaakaar yajuudu lii bi samanil musaarixe lii abadan ay qadimin baarixe yajuudu dana tabe tabe mooy may lii jëmee ci man bi samani njëg al musaarixe ku di aji njëkkantoog lii ak man abadan faw ay qadimin bu mu ci ab liggéeykat yonentu baarixe ku di aji raw ay maasam nee na képp kuy def ay musa ak musaara ak man ci liggéey yonent bi sallallahu alayhi xam nga ne doonuma ci sa morom moo tax da nga ñëw jébbal ma leng yi <laughs> da nga ñëw jébbal ma sa lengi yi yow koo xam ne day def musaara ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca raw ci ay maasam yépp ñi di la naw da nga ñëw jox ma say leng yi yow da ñëw jox ma njëg ndax dooma ci sa morom waaw loolu rek la jublu ci max maxnaa mi moo tax ma ne jur dana tabi lii ñeno bi samanin ci njëkk al musaare kadi aji njëkkantoo lii ak man dana ñëw jox ma ko abadan faw <laughs> ay xadimin laa wax nag sëpp na samp na dëndali de bu mu ci liggéey katub yonente baari bu dee aji ku ñee tuddee liggéey katub yonente bi tar raw na ay moromam raw na ñoon jamonom ñëw na jox ma leng yi ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam huwa moom allazi mooy ki nga xamee ni moom yàlla kaana nekkal na lii ñeen ma fil mawaadiha ci sama biir barab wa fii duyuuri ak ci sama biir kër bi ci dara ja yonent bay aji gindee ji waa di kadi aji tëral maanaam sariha nee na suñ borom mooy ki nga xam ne daf may nekkal ci samay barab barab moom bokkut ak dëkk barab lu mel ni gànnaar gam jaaroon ci yoon jolof yooyu yëpp ay ay barab la mawdi'u la koy turee karramani fi mawdi'i wa baladi mukariman bil amni safa xaladi kon fu mu mën a jaar te nekk fa rek donte benn bis wala mu yend fa wala mu am fa weer kooku barab la ko tuddee kon foof mu nekkoon ca barab boobe suñu borom fekk na fa ak ndimbalam di ko ci nekkal di ko xetal moo tax mu ne yàlla mooy buur bi nga xam ne nekkal na ma ci samay barab nekkal ma ci samay kër kër moom mooy yim sancal bopp mooy dëkkam rek la ci jublu lépp da koo def ci darajaa yonente bi nga xam ne mooy aji gindee ja bokk na ca turam ya suñu borom nee na ko wa innaka la tax tahdi ila siratil mustaqim waaye mooy aji tëral sariya kooku mooy waadiya loolu jublu ci li nga xam ne mooy maxna ak waadiya buñ ne e, waadiatul qawanin al jadidati mooy musinu laha musarraxun dégg nga mooy ki nga xam ne dafa dafa tegal règlement yi règlement yu bees tàq te règlement yooyu nag mooy jëmmi sariya nga xam ne règlement la yoo xam ne dañ koo teg mu leer nañ ñi kenn du ñëw di ko jalgati boo ko jalgatee rek boo wàccee yoon yi rek na nga xam ne nag am na ay daan yu lay xaar su fekkee tuuboo dellu sa borom boo bañu tub na na nga xam ne am na daan bu rëy bu lay xaar ëllëg yomal xiyam kookoy waadian munal ma jaamia mallaka moom loona lii ñeel ma yàlla mu di aji moom ji kulli jaamixen bépp jaamix wa kulli ak bépp jàkk munal ma jaamee ak mbébatug dajee waaya mu ne sunu borom mi di aji moom ji moom loo na ma sëriñ bi dafa bëri tawxiid nga xam ne saa boo xam ne yàlla may na ma dara day indi tur wom ko ko mayee <laughs> saa ku la may nangam nga ne diw ko may waaw ndeysaan foo jëlee nga ne may ñëpp dañuy xam ne kon diw la ko may dégg nga. buñ ne jaamiu nag wal masjidul jaamiu mooy allasi tusala fihi al jumaatu yuqaalu masjidul jaamiu moo tax jàkk dañ koy wax jaamiu ndax dañ fay julli moo tax koy wax jaamiu jaame moom mooy loo xam ne mooy daje waaye rek foo xam ne dañu fay daje benn ñu fay jullit yëpp wa isa kaano alquran wax na ko ma woo ala amrin jaamiun kon foofu alquran lam ci jublu mooy barab boo xam ne dañu fay daje xëy na ñuy naan ataay di waxtaan lu ne rek dégg nga waaye sëñ bi nag moom jaame lim ci jublu mooy jaamo jaamokaay yàlla yi mooy jàkk yi buñ ne wa kalaamun jaamiho mooy xalat alfaaso wa kasarat maanihi wax yi kat jaamio la mooy ay baatama new ay maxnaaxam bëri waaye ala kulal buñ na jaamiu moom mooy barab boo xamee ne ci jàkk ja la mooy saxaaba buñ ne saxaaba ilal jaamia mooy li ada i salaatil masjidul kabir dañuy dem ngir joxe julli al yawmu jaamiu mooy yawmal jumaate buñ ne bis ba nga xam ne dañuy daje nga xam ne booy xool aljuma ci la nit ñi da gën a daje kon loolu yawmul jumaate lañ koy tuddee kooku mooy jaamiu sëriñ bi kon nee na yàlla mu di aji moom ji moom moom loo bépp jaamiu maanaam bépp daje waaye boo xam ne dañ fay daje rek di fa waxtaanee lu baax wala ñu di fi waxtaanee pas-pasu diina sunu borom moom loo na ma ko waaye bépp jàkk itam ak la nga xamee ne la ñuy la ñuy buñ dajee ci jàkk yi la ñuy mbébét sunu borom moom loo na ma ko. majaamix moom mooy jaamixahu alal amri mooy ijtamaha maahu alayhi barab boo xam ne dañ fay daje lu mel ni ñu ne maj ma on naasu mooy mujtamiyoona bu ne maj ma mooy mawdixul euh, lijtimaa Euh, buñ ne jaamia dañ koy tuddee hay'atu rijalu diini l kibaari l mujtamaati li nasari fii baxdil qadaaya diiniya maanaam daal ñiñ gën a fonk ci diina mooy góor ñi nga xam ne ñooy att ci masalam diina fa ñuy dajee di attewoo ci diina moom la ñuy tuddee majaamia majaamia nga xam ne kon diina lañ fay lañ fay doxal buñ ne majmaul aw luqawiya mooy hay'atul ulama yi aw luqawiyina allazina jamiyati aw muassasatu rasmiyati aw xaas waaye majaamiu mooy masalan jàkk yi nga xam ne tey nit ñi dañuy dugg ci biir jàkk yi di ñaan seen boroom lañuy bëgg di ko mbébét yépp sëriñ bi kon dafa mel dafa ne suñu boroom may na ko loolu nga xam ne yemul ko ci may ko tabax yi jàkk yi waaye ñooy nekk ci biir jàkk yi la ñuy suñu boroom may na ko waaye mboolem fa ñuy àttee pas-pasu diina te mag yi diin di ko def ñépp lépp ci xeeti yi wa ngëneel lépp suñu borom jox na kon mooy yàlla <laughs> jox na ko lépp rek kon malaka moom loo na lii ñeel ma maaliku yàlla mu di aji moom ji ku la jaamihi bépp dajee waaye xam ne maanaam daje waaye bi la ko doon mooy pas-pasu diina la ñuy jagal wa kulli masjidin ak bépp jàkk munal ma jaame ak da ak mbébatug dajee waaye ja maanaam jàkk ya ci boppam ñay dajee ci biir jàkk ko ku mooy munal ma jaame lu ñu mbébat suñu borom jox na ma ko kenn dégg loolu ci kaw suuf nawara leeral na ku liye sama lépp bi noorin ci leer saati xe guddi aji jolli man yàlla mi nga xam ne xaada mat na li jëmee ci man xayira kitaabin ngën ci téere xaati xe gadi aji dog lépp li gàllankoor nee na suñu borom leeral na ma leer goo xam ne waxtu na day jolli ku ñëw ci man xam ko sama lépp yàlla da koo leeral leer goo xam ne waxtu day gën di jolli di gën di feeñ di jëm kaw yàlla mi ma ko leeral la nag mooy ki ma jox téere bi nga xam ne mboolem li gàllankoor nit ki boo ko ci yow raditu gërëm loo naa an rabil baraya walis borom bindee fi almaanixe kay aji tere kay aji fekk ji dégg nga ridan ngërëm loo xam ne xamaan yi moo ma xaaral boppam xan asal mawaanixe walis lori walis loruk way tere ñi nee na gërëm loo naa yàlla muy borom bindee fi moom mi nga xam ne bokk na ci ya mooy ci al asmaul husna yi ci la bokk muy bokk na ci tur yàlla mooy almaani nga xam ne léeg-léeg jaam di bëri lu muy ñaan yàlla rek yàlla bëggoon a wàcc ci moom musiba yàlla fanqal ko ko wala ay doomu aadama bokk di nas am pexe bëgg koo kapp ci kawam yàlla def lu ñuy wax maanixo muy tere ko ba du yegg ci jëmm jooju mu ne gërëm naa yàlla muy borom bindee fi moom muy aji tere ji te bokk na ci al asmaul husna yi nee na ngërëm googu ma ko gërëm nag moo ma xaar ba mboolem ñiy lor bu ñee lor dañ may teggi ndax gërëm gi ma gërëm yàlla naka noonu ñiy tere ñi nga xam ne tey masalan buñ bëggoon a laal kenn ci kilifa diini yi ñi dem na ko doo ko def <laughs> sëñ bi dafa defee ne sax maanaam moom noon di ko fitnaal nga ñëw di ko tere nga ñëw di tere noon ba dafa defee noonu maam lool ak lor la lor jàmm bi la sëñ Tuubaa moom dafa moom pas-pasam foofu la yegg maanaam maslan bu ñu loon lor ab kilifa diina ña dem di ko jàppale moom day defe ne moom loolu moo ak lor la moom buñ koy lor jàpp na yàlla koy lor lu kéemaane la moo tax reditu gërëm loo naa ànd bil baraaya wala si yàlla bi borom bi almaane ka ji tere gërëm loo xam ne xamaa ni moom xaar an asal mawaaniyee walis lori way tere ña way fekk ña nga xam ne ne Euh, dañoo ñëwoon di ko jël si di ko yóbbu ci tukki ba yenn ci ay taalibeem ñëw di ko jàppale wane ne dañ koy jàppale di ko laaye biire maanaam ñi bàyyi laaye biir gi sax moom moo ko gënal ndax laye biir gi benn dañ koy lor gis nga lam leen waxoon ca ndar waa ñàmbur ñëpp ñëw di ñëw ñëw di ko ñeewantu sëñ Tuubaa leen yàlla moo ëpp bu fekkee yërmande ak ñeewantu rek ngeen am yàlla moo leen ko ëpp kenn masu dégg loolu bixtu wama ma bixtuhoo biraaji li abadan wa fustu bil madaaji bixtu jaay naa yàlla wama bixtuwoo te la ma ko jaay moom yàlla wama la nga xamee ne maanaam wama ma bixtuwoo maanaam la nga xam ne jaay naa ko ko biraaji déet muy aji dellu ci mukk lii di jël ci man abadan faw maanaam daal yàlla jaay naa ko marchandise moo xam ne dootuma delloo marchandise ma mukk muy ñëwaat ci man bixtu jaay naa yàlla wama ma bixtuwoo te la nga xam ne jaay naa ko ko biraaji déet muy aji dellu si waat lii di ñëw ci man abadan faw wa fustu tuubu naa bil madaaji ca tëdduwaay ba nee na jaay naa ma ko jaay dootuma ko delloo mukk te tuufu naa nag ci li nga xam ne moo di tëdduwaay ba <laughs> ma daa jaay mooy tëdduwaay nag bu ko waxee jublu ci tëdduwaay fi muy tëdd yendoo ki nelaw nangam kooku moom noppaluwaay ba la mooy aljana ndax aljana nag moom jaayante rek mooy mooy tax nit ki maanaam nga dugg fa nga tàbbi fa. ba dara njëkkantu na liy jëm ci man karamu baaxin tiraanga yàlla mi fee sax ba fa tëddu faatu jaamixe kay aji dajale kay aji dajale fii kulli seen lépp lëf bi siraaji ca darajaay lamp ba alaamee kadaaji melxati nee na tiraangay sun borom mi fee sax ba fa tudd faatu ay tiraangam dañuy baagantu di njëkkantu di ñëw ci man yàlla mi nga xamee ne mooy kii dajale lépp lëf waaw mooy mennam penc rabbana innaka jaami'un naasi li yawmin laa rayba fiihi mooy bis ba nga xam ne yàlla de dajale ñëpp nit ak jinne dégg nga mu ngi ci darajaay yonent xam ne mooy lamp buy melxati kooku mooy siraaju laay mooy lamp boo xam ne heure du fay daal ci gàttal day tàkk rek bi siraa ci darja lamp ba alaamee gay aji melxati mooy tàkk waxtu ne day day tàkk rek ci waxtu ne kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi tuddee na ko siraaj siraaj mooy lamp bu leer naññ moo tax ko bi siraa ci darja lamp ba alaamee bay aji leer naññ kooku mooy laamee moo tax buñ ne maanaam asamaan si melax na mooy ada leer na naññ ndax melax gi moo tax nga nga xam ne leer na ndax melax day indaale ak leer moo tax alaamee gade aji leer lamp bay aji leer mu jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ana la nii may na ma man yàlla mi nga xamee ne yàlla jommante naak an mu daari walis ñi di ko niroleeg dara dara dara dara dara lam ma may maa waddoxoo mooy la bëggoon na ko la bëggoon na ko kulla adibin bépp aji am adab daari xëy ku de aji toroxloo bu ñu mu daari bi moom lu muy tekki mooy saa baxaxoo maanaam yàlla kenn du ko niroloo ak dara ndax laysa kamis bi sooy wasmal basiru waaye daarion moom li muy tekki mooy wajan bu daarion bu ñu ko waxee mooy mutaqasihoon mooy ku mën a toroxlu mooy ku am adab rek xam nga tey teggin mooy may nit ki mën a toroxlu ci roon sëriñam ci roon wéy juróom ci roon nit ñi ñëpp teggin moo ko may nit moo tax teggin boo ko amoon mën a toroxlul kenn moo tax bu ñu ne daarion saqiiru sinni yuqaalu xaddu daarion wa jan bu daarion mooy mutaqasihoon wa gis mu daarion mooy naxiifun daifun maanaam koo xam ne bëgg da ngay jàpp na yaram bi dafa doxadi sax ngir mën a toroxlu kooku may li nga ne mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne dafay toroxlu buñ ne daareew mooy mutasalilun mustakinu moo xam day toroxlu ànd koog mokk ci waxtu bu buñ ne daaraxoo fii axmaal yi mooy daaxaahu saabaahu xaakaahu lam yakun yattasawaru annahu yujudu fi dunya rajulun yu daarihum fi quwwati mu ngi noonu kon bu njëkk bi mooy yàlla la jublu yàlla moom kenn du ko nirole ak dara kon suñ borom may na ma moom mi nga xam ne jomb nañu di ko nirole ak dara bépp arab bu mën a toroxlu bépp koo xam ne dafa am teggin di toroxlu la mu bëggoon yàlla may na ma ko moo tax ma ne anaa la may na ma man yàlla mi nga xam ne jàlla jombante nag ëppante nag jomb na xat mu daa dee walis di ko niroole ak dara la ma may moo mooy maa wadduhoo la bëggoon na ko ku la adibin bépp aji am adab ko am teggin daa dee ku di aji toroxlu ki nga xam ne dafa mën a toroxlu am adab lool lam bëggoon yàlla may na ma ko yàlla mi nga xam ne kenn du ko nataal di ko niroole ak dara kon loolu may la goo xam ne ba tey may gu kawe kawe la